maa ngi wax waa jigéenu Benno Siggi Sénégal doomu Moustapha Niass bu jigéen jabaru Tanor bu jigéen bu jigéen sax moo am dama ne eh sakata sakata Daro Mbaye dama ne doomu Moustapha Niass dama ne jabaru ak Cheikh waxa doomam bu toll ni man man xuma sax ndax am nañu doom yu jigéen waxa amuñu doom bu jigéen. ma papa qui ngeen bëgg ngeen teg ko ah, parce que ñun ñu wax Nous ngeen commencé ma papa le dernier C'est papa papa Karim ma papa Fesca Popi ma papa ba ma jeex tàkk ba ñuul ne melu ma ni xool ni da ngeen ma tu, Sénégalais c'est sama papa sonnoon Fallu commencer à faire un ngeen uñaan capate capate ma ne ma a bu ñu kenn dit ñun a yàgg tok di Il mbo ak euh, crevette ak euh, ak euh, comment dirais-je corned-beef ma papa fallu nous commencer commencé ay mes yi soxor eh, lii lan la iñaan tàng na gini kelma yow ci suuf moom xaaral ma ci bisam samay dàll lay sumi defante kook yéen ba mu saf sàpp laa wax samay dàll ngi nii dama ne Moustapha Niass laay waxal ak ki nga xam ne mooy képp ku nekk Benno Siggil Sénégal bu dee jigéen nga ñoo ñu defante ko ba mu saf sàpp mais qu'est-ce que ça veut dire ces choses là lii mooy leen lii mooy leen sama daal lii pënd lii mooy wane ne ka man xam naa lu pënd lu soro man duma jeeg waaye dinaa def defu jeeg ba mu saf sàpp sama yaay nag amul jot di wax ak yéen parce du si puuta su ko neexee paaje bakku bakku bakku lay wax iñaan man melu mun nii

Nam, kan nabone. Ngeen foog ne daal ci bay dama ne ci péri xolal dama ne niñ ko doon defee récréation classe de sa daal la tàppante ko laay defante ak yéen ba mu sax sàpp toj kaani patal li mu ne ko ci payi sama papa laa bëgg ngeen teg ko le 19 boo leen ñëwee di ngeen xam ne ne pale bi am na jeegu tubaab bañ naa ko ba duma lekk gerte tubaab soof ba bëgg dee seen kanam yu wow yii ñu naan tata Aminata Mbengue Ndiaye mel ne lekk ni taxaw naan dafay defanteeg sama yaay ñëw leen ñëw leen ñëw leen di ngeen xam ne comme man waxuma sax jigéenu PDS yéen tamit jigéenu PDS jànq yi nekk PDS amu leen fulla ñëw leen ngeen jàppale ba ñu sotatal leen door leen ba ngeen ba de man dama wax ak mom ndax séenatu ko ci palais bi dima charmer waaw dugg ci palais bi dima mais yoy yëpp taxuma wax man na len xamante ne dama koy defante ak yéen ba mu saf sap la wax waral na am far bu bax ngeen xam man waral na am far bu bax ngeen xam mom ci bopam dana ko defante gi waye man yoy intéressé wu ma li ma intéressé moy tok defante ko ngeen la des na max ngeen xam ni danaa def ak teg wuyaay chéri koko waxoon ko soo ma bëggee lii du la dal ah si ni wuyaay ah! i mun fàttali na kii dum président la kat tey laay dee